mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di jiital si nuyoo boobu sëriñ baari Ñang mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Ahmadou Fadiama Ñang di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko fan gudd ak mbooleem njabootu sëriñ Ahmadou Fadiama Ñang gépp di nuyu jataay bi ñëpp di si jiital sëriñ Abdoulaye Diop mi nga xam ne suñu xarit la ak sëriñ Am Diop ak mbooleem jullit ñi fi teew ak mbooleem taalibe yi ak sëriñ Maxtaar Ka mi di nit ku baax li ñu yëngal ba ñuy bëgg see sànni ay kàddu sëriñ daam dafa wax wax ju am solo joo xam ne sëriñ Saliou muy loo xam ne ñoom ñaar ñoo ko dund si daara ja si sëriñ Saliou Mbacke yàlla na suñu borom yokk ay leeram ak mboolem jullit ña fa nekk ñëpp ñun nag su fekkee dañoo bokk ak sëriñ Saliou benn bàyyi sëñ daam wax wax ju rëy jii si moom ñun ñu am luñ dund ak moom. loolu ñu denc ko suñu biir xol te waxuñu ko loolu day mel na ñun duñ sant wala duñ gërëm ndax suñ boroom moo ni saa boo leen santee ma dolli leen te dañoo bëgg ak ndool leen sëriñ Saaliw maa ngi moom si suñu dund mosuñoo gisee ma nekk si daara ja mu nekk si daara ja lu kéemtaane laay wax sama diggante ak maa ngi njaareem di jàng si daara yi sëriñ Moustapha Guèye yaruwaay sëriñ Saaliw at yooyu mu daan def moom sëñ Touba di ñëw njaarim ay jamono mu ànd ak sëñ Saliou mii kon dongo yi dañu daan def di ñëw si kees yi mu ñëw si biir kees gi di wëreelu noonu si biir kees gi noonu di seet ndax daara ja méttoon di seet lu may lekk ak ak fu may dugg ak yooyu di këfantu ay ay ay lekk ak yooyu damaa jékki-jékki gis sëñ Saliou mii génnee si kees gi yor am xar moo xam dañ kaa afra ba mu baax def ko sib saako mu woo ma ba mu ñëw mu jox ma ko te boobu lañ ma si gisee suñu dund maag moom te xamante wuñ te ñoo bokk bàyyi wallaay naa si mbarki Sëñ Tuubaa loola jaaxal ma man ba léegi nii loola jaaxal ko moom ba léegi nii bi yàlla dogee bañ tase daati kër ñang man loola day des sama bopp bis bu set te teraanga jooju mu defaloon ma moom la séq ak man ba nii ma toll Sëriñ Saaliwu at mu jot moom a jox xaritu bis ki man loolu muy lu rëy rëy loo xam ne ci man bërki démb bi may voyage di tukki fanweeri junne la génnee jox ma ne ma def ko sa kër nga def ko say dépense sëñ bi loolu ku la ko mën a defal ñu tuddee ko bis bu toll nii te waxoo ko doo gor kon faw ma génnee ko sama biir xol wax ko su ma ko dencaalee rek du ma gor Serigne Saliou nit ko baax la Serigne Saliou ku bëgg ay mbokkam la Serigne Saliou ku ñer la Serigne Saliou ku am yërmande la saa boo toogeek moom dina la wax jikko yi rafet yoo xam ne yow lépp lu nekkoon ci yow di nga dëpp jéem ak yar ak bi. toog naa suñu seex mi nga xam ne moom waajuram man lépp lu ma wax suñu seex ñëpp ñoo xam ne dëgg la ndax suñu seex maa ngi moom doon woon ñaari nit benn nit lañ muy waajuram mm-hmm. ku ko gis da nga yaakaar ne sax moomu jur man muy sama lépp di ñaan suñu borom yokk ak leeram si barke Sëñ Tuubaa suñu seex toog na si keesam googu am jafe-jafey xaalis Saliou mi moo jékki-jékki génnee boo xam ne ñëw jox ko mu ne ko waat naa si yàlla de nii sama bët xonqee nga leeralee ko nii sa xonq xonqati mukk mm-hmm. wallaay naa si loolu man maa ko teew maa ko fekk ànd ak naag moom ami seex mokkal alxuraan bi bindu kaamil ñu di ko jox sëñ Muntaxa keroog man ak saari mii ñoo ànd ak maam daam ak yaakaaraan ak am di mais bañ demee sëñ sëñ seex la mu wax sëñ Siri Moxtaar dafa ne ko saari mii sama doom la te dama kaa bëgg lool te am yërmande moom si moom lool damaa bëgg nga ñaanal ma ko bu mu am benn jafe-jafe àdduna keroog mun Muntaxa daa jël ñaari loxoom téye bopp saaliw di ñaan di ñaan ba mu yàgg mu tifli ko si kon nag saaliw na la leer na la yow xaw ma kuy des ginnaaw waaye du des ginnaaw Saliou yàlla na la yàlla dimbale yàlla na la yàlla jàppale lii su ma ko génnewul woon sama xol du ma am jàmm mukk wasalaamaaleykum wa rahmatullah ataytani ya rabbi يا ربي في الهراف وخير يا وجدت في المحروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مدى من أدري ما تسلما كافأني من ما له كفأت بما لخير ساق كل من جاد أكرمني بخلق والآوات ربي ولم يكن له كفوا النار ناجاني الله مكرم الزمد تناجيا به كفاني الكمد وجعل الأكرم أنف الكرم ودرر بخيرات لنسرم أسأل كونته الخسيرة هارهة لهارة المفيد يا حي يا خيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خاري سرور فيه بما يفوق سلم المحروف لناسم الحروف خالد رباه يا من كفى أسى القرون والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ساسلا مسلما على مستخص الخلاق di bokki taalibe yi seen bokkum jullit di seen bokkum taalibe moo ngi leen di nuyu nuyu ba gën a yell ci seen daraja te di leen siyaare te di leen dokkeel ci bis bii ñu jénn te di leen fàttali ñaari baat rek yoo xam ni dama ko bëgg a wax bala maa jàll ci wax ji ndax Mohamed Sarr mii nga xam moom moom kër gi ñu féete càmmooñ dafa faatu te faatoo ndaw na ko ñëpp bàyyi xel jurul kenn di dagg sama kàddu gi mën na koo ñaanal Baye Ndiogou ña sama xarit lool te bëgg ma na ko ñëpp fasal ci fiñ toog ñaanal ko yàlla jéggal leen ci daraja yonti barki Serigne Touba man nag bëgguma ci woon a wax benn kàddu benn kàddu ba gën a néew bëgguma ko ci woon a wax waaye dama woo samay bokk di samay xarit ñoo xam ne ñoom de ci luñ ma woo danaa leen ci wuy ji ñu wuy si ànd ak man ba egsi ci baas bi ñu forcé ma ne ma mënoo cee ñàkk wax ay baat waaye man benn baat bëgguma ko ci woon a wax ndax sa Cheikh Mbaye mii laa bëggoon li ma bëgg a wax lépp moom mu wax ko ndax deesu la tegal ndebal teraanga nga seet la nekk ca kaw ndab la la ca gën nga lekk ko jóg di meleste ko di xool say bokk ak say xarit di dem loolu du du war ma ci képp koo xam ne yàlla dogal na nga xam àdduna mhm. wax ji nag lu doon dara lu dul cant mhm. cant gi nag samay bokk laa koy njëkkee waaye sëñ maa ngi ñëw ñëw ci yéen yow sëñ Ablaye Diop yaa ak sëñ am bu ma sañoon di bokk ak yéen yaay bokk ak yéen benn ndey te loolu daa leen ko wax li tax ma bëgg ko ci mujj wax ji ànd ak sama bokk yii nga xam ne ñii ngeen gis ma ak ñoom samay xarit lañ bu wér a wér ndax nit boo ko mënee téye ci barab ba deux heures de matin jàpp trois heures xamal ne kooka am na cofeel ak yëg-yëg ci yow ndax sañ daam mii doon wax mooy sama mag sañaas mooy waajuram sama baay keroog bi muy bëgg a génn àdduna man maa ko tiim bokk na ci lim ma wax dani ma bu ma fi jógee sëñ aas na ma tiim ndax ku lewet la te baax te musta mooy yàlla sëñ Cheikh ma ko wax moo jur sëñ daam mii ma mag te doon wax moom mii doon wax maanaam mënuma sax wax <laughs> ndax am kersa ak naqar ndax bëgg lu bari bëgguma muy muy jénn ndax man naa am jénn gi lu bari njariñ bu ma sañoon rek dañuy bàyyi noonu ndax mboolem li mu wax ci man lu ko fuuf moo nekk ci moom ndax 82 lañ dem ci loxo sëñ Saliou man ak moom moo fa jiitoo benn weer wala ñaari weer léegi lañ koy waxtaanee ma ne ko man de sëñ daam li ma jaaxal bi ñuy dem kër sëñ Saliou lu ñu war a toll. mu nekk fa sëñ Saliou jëlee ñu fa 82 83 mu yóbbu ñu got 84 mu yóbbu ñu xabaan ñu nekk fa ba 90 ñu jógee fa mu dem jàpp jàppandal ma dem dookaa ñu jógee fa dem nekk xel koom. kon ana yii muy wax nan la mën a nekkee ci man te nekkul ci moom amut mënta ne lii mu muy wax ci man nii mënta nekk ci man te nekkul ci moom mooma fa jiitoo benn weer wala ñaari weer ñu yóbbu ñu 82 got 83 got 84 xabaar 90 ndooka ndookaa njàpp ndal ñu tàqali koo foofu dajewaat xel koom ci daara yi siis ñu koy wax ndindi ana lii muy wax nan la mën a nekkee ci Saliou te du nekk ci moom loolu gën gum ma gën moo tax parce que damaa waxoon sëñ am di mii ne ko bëgguma cee wax benn baat bëgguma woon ànd ak kenn waaye bu ma ko defee damay bañ daayira bi yaakaar ne dama leen a tuutal waaye damaa bëggoon mel man dong doyoon na ma ndax ànd ak say bokk ñu tuddee la bis nga ànd ak ñoom ñu ñëw di wax ci dara man loolu sama deret àttanu ko lu diis ci man la man bu ma bu ma nit dee tàgg sax danga may jaxase bu ma sañoon dañ may bàyyi ma nekk benn donga nekk benn simple saaliw buy dugg ak a génn nekk ci boppam rek du sonal kenn te sëñ Abo bi moo ko wax ne ko moom wax ne mu mënta ñàkk wax sëñ kenn ku nekk xam na ko jàmbaar la yoo xam ne man ak moom lu ma lu lu nit bëgg ci man bu jafee demal wax ko ko boo koy wax bu ma koy wax ma koy def boo ko koy wax bu ma koy wax ma koy def moom it lu mer mer mer ak lu mu bég bég bég moom bu ma gisee lu ma ko wax dan ni tekk di ma déglu lu ma ko wax dana ko def moo tax man la ñii ma àndal ay bokk lañ ay xarit lañ gis nga sëñ Xaadim mee wax ne moom ku sëñ Cheikh jur yoreel nga ko borom cant borom fay boo xam ni dañ ko koy fay rek waaye du mat mukk ci àdduna ndax sëñ Cheikh daan na mu wax ne ma saaliw astaghfirullah da daan wax ni dama wol ma xaadim bu ko wooye bu fekkee mooy nelaw bu jógee du sëlmu danaan daan bëri rek ñu wuy si ko noonu ba keroog bi sëñ seex nekkee hôpital ma yor ko fa ci guddi gi daan nañ ma wool ndax moo gën a yërëm ci yéen kon doomi sëñ Cheikh ju ne amal na ko cant ñii ma àndal boo gisee ma leen di tudd kenn par kenn di leen présenté lii kenn ku nekk li nga def dama koo xam ni mu toll ndax nit lu mu la may ci dara jaam bul ko xeeb rawatina koo xam ni yé moo la lépp yëkkati léppam jox la ko sëñ Abo mënuma bëggumay wax ci moom ndax léeg-léeg dama koy tooñ na ko xam naa ni boo fi mujjee maa lay taxawu waaye loolu wax ji dama koo safaane parce que dafa ñemee responsabilité dama koy tooñu loolu waaye wax ji dama koo safaane parce que maa ko mag te ñaan naa yàlla bu ma faatu woon bàyyi ko ndax xanaa nit lu iñaan iñaan wax dëgg yàlla kii nga ëppi at bu ngeen bokkee gudd fan wax dëgg yàlla nga ban nga dem sax bàyyi ko fi au moins nit ku baax ku am ngor te am kóllëre musta wax ma wax bu doon wax ba jis ma day sëgg rus ma ku ko ku sama xol yëg la te ma bëgg ko lool sëñ Cheikh naa mais toog ak sëñ lemeen ak sëñ maam Thierno dama leen di wax ne yéen yéenay samay sëriñ ndax la sëñ Cheikh Mbaye wax léegi man aw sant dee suma ci yilife man jàng naa téere sëñ Tuubaa yi doomi sëñ Tuubaa yar ma man dem ak kaag mbàkkeeg bu soobeek ñang ak faal ñëpp a yem ci man dafa am lu ñu sëñ Saliou doon jàngal te loola ku ma ko gis ci yow ngay sama sëriñ jub ak baax rek ñoom samay sëriñ lañ sëriñ bi mii ñoo bokk bàyyi waaye man la jàpp ni maay sëriñam te xam na ni man mutu man mutuma ko donga sax ba muy matub sëriñ te lii ma leen di wax genn njayeel bu ci fan bu ci tàbbee ci wax ji may wax yàlla bu ma yeewu bu subaa kenn ku nekk li ma lay waxal li may wax mooy dëgg sama diggante ak yow ay nit ñu baax Modou karaam yi maa ko woo ne ko kaay gugge ma ne ko yow gone nga waaye mag laa la jàppee ci mag ñi laa la boole parce que sa melokaan ak sa doxin ak sa jikko ndax koo ko di fii ci ci imaam yi la bokk jàngal xuraan ba mokkal ko ñëpp di taxaw ci kanam muy naafi la taxaw ci kanam nit ñi di bayaan taxaw ci kanam nit ñi di wax lu nit ñi mën a dégg te xale ku ko jàppee xale dangaa juum mais mag la te jikko jee rafet kon ñii ma àndal de ñii laa àndeek ñoom ñoom it nañ xam ni man luñ soxla ci man jërul ñoom ñu di ma woo naa ko nañ yónni ndaw ma dégg ko yi ñuy wax yépp nag man naa am yi ñu njort la ndax la Seydina Aboubacar waxoon rek sa Sadiq dafa waxoon ni yàllaa ma leen gën a xam te maa leen gën a xam sama bopp waaye man xam naa ni duma nit ku normal bëgg baax nag moo tax ku ma gis nga góorgóorlu ci baax ma bëgg ma bëgg ma bëgg la ngir jëm yàlla loolu moo tax may góorgóorlu ci baax bu dee sama digganteeg daayira bi ñoom xam nañ man xam naa ndax jaar nañ fu bari sëñam di mee di sama moo leen njëkk di leen jàngal répéti ñuy répéti fii di ñëw gannaaw yàlla li ma boole ñoom sëñ bi moom la soqi ko may dox seen digganteeg sama waajur sëñ Cheikh benn yitte rek laa amoon ci àdduna muy jumaam ji ji muy liggéeyal yàlla bi mu demee ba xam ni li mu soxla ci liggéey bi il faut mu am matériel bu doy te matériel bi bi mu ko sàkkoo ba am ko mu xam ne tool yu yaatu moo koy liggéeyal mu woote ne damay dindi ndéjjim ëkk kenn ku nekk xam ne ndéjjim ëkk caaxaan du ko def ñoom ñi ñoo ko daan déjjil ñuy dem ci àll bi bàyyi seeni liggéey def fukki fan ak juróom ci àll bi lu sëñ Cheikh bëgg ñu def ko te buñ ñëwee duñ ne oh te bu leen wooyee bu déwénee ñu delluwaat dem nañ fa ñetti yoon loola nag kóllëre ak ngor moo tax ñu xool ma waaye bu doon daraja aku tur duñ ma ko tuddee mukk ci àdduna ndax gox bi am naa fi bàyyi am fi mag kon ci ñi fi gën a suufe daraja laa bokk ndax yoonu murit moom boo fa amee bàyyi am fay mag ci ñu fa gën a suufe daraja ngay bokk ndax jotaay bii ñu toog képp sama kilifa wax muy sëñ maam daal mi kon ñoom kóllëre la ñuy feddali wane ni lii ñuy def sëñ Tuubaa rek a tax ñu di ko def sëñ am nag dafa wax lu am solo loo xam ne man ci lay insisté te man loolu rek laa bëgg waxtu wu nekk ci loolu lay xul xul nag mooy ko am lu ko naqari te mënu koo faj berutum ruqam wala mu toog ci nit di ko wax mooy dëkk bii war ma ji xamuñu ko damaa dégg sëñ Cheikh ni dégg na ci sëñ Modou Khari sëñ Modou Khari ne dégg na ci sëñ Touba mu ne man quatrième position laa boo ko jëlee ci sëñ Touba sëñ Touba sëñ Modou Khari sëñ Modou Khari sëñ Cheikh Saliou moo leen di wax lii nee na bi ñuy sanc Touba sëñ Touba dana leen dem leen Touba ngeen toog fa mag ñi di daw di ñëwaat jaareem ngir booba xéewal yi bari na mu ni leen de li ngeen gis njaareem ba di ko xemmem bu doon daala lu ñuy root dañ koo duy ba mu fe dell taaj ko Touba la desoon ca paan nga ñu sotti ko muy tuuru ca ca ki mu ñu ndaala moo roog a laaj njariñ nii daan ni kenn ku nekk na fa dem toog fa sanc fa te bu ma kenn laat ak ak ñaan léemu naa suuf sa bëriwaa na lu fay dox guddi nag bu leen ni lii lu mu loola ñu na su muru xëri sëñ Cheikh neen nii la ko sëñ Tuubaa nettalee daan ni leen ku fa dëkk maa la warlul ajjana ju aj wut ci sa jaamu yàlla kon maa la warlul teraanga ju aj wut ci sa coono ku faatu ñu suul la fa maa la warlul àjjana ju ajuwut ci sa jaamu yàlla loolu nag dama leen di wax ne leen sëñ Tuubaa lii sëñ Modou Moussa waxoon daal ni li mu waxoon te gisaguñ ko moom lañ gën a gëm ci lim ñu wax ñu gis ko ndax saayir dong laa koy àttee Tuubaa amut dex amul géej amul usine deuxième capital senegal boo demee kër yépp ñoo bokk lu ñuy añee ñetti palaa rek bu tayee nga togg ceebu jën bu subaa nga togg ceebu ndaw bu ëllëgee nga waree ko sëñ Tuubaa moo ko tàmbalee ci kër sëñ Muntaxa ba kër mujj ca sancaan ya defal ko loolu kon li mu waxoon loolu lu wér la te nee naa leen aspect saayir bi nga xam ki tëdd ci bàmmeel mën ki tëdd ci bàmmeel mënta nettali li muy jëflanteeg sañ Tuubaa waaye dëkk boo xam ni lu ëpp junniy daaraa nga fa lu ëpp junni lu mat junniy jumaa nga fa lu ëpp ñaari junniy jàkkaa nga fa duruskat yi donga yi jàng alxuraan ñii di tari juróomi isib ñetti isib ñaari isib juróomi isib ndax suuf soof danañ xëy di fa wàccee lu toll noonu malaaka mu ñàkk yërmande yàpp boromam ba di fa jaar kon loolu ñun ñi nga xam ne gëm nañ sëñ Tuubaa loolu mooy aspect saayir bi mën a gëmee ki tëdd ci bàmmeel li ko sëñ Tuubaa digoon na ko boo tëddee Tuubaa moom texe nga loolu moom xam nañ ko bu baax a baax ñun loolu mooy li nga xam ni jàpp nañ ko bu béré ci waxi sëriñ bi damay gàddal kàddu gi rek ndax guddi na te bëgguma sonal waaye sëñ Ablaye li taxoon man leen yéen de bu ma sañoon maag yéenay bokk ndey ndax sëñ Ablaye ca jàkk ja ngay wax sañ am ca télé ba di waxtaanee sëñ Tuubaa sañ am ca jumaay sëñ Tuubaa ji ca xasaayit yi seen yaay juralut doom sëñ Tuubaa la jural yaay juralut àdduna doom lislaam la jural doom man du ma wax lu ma xamut sañ am tey nga ma mos a gis sëñ mais mosu ñoo toog lu ma fukki minit di waxtaan dañuy romb nuyu want Moussa Diop a nga Ndakaaru tey siir lañ koy wax ama nga ca Touba TV sëñ Touba rek lay waxtaanee sëñ Moussa Diop nga ca xidma bu xëyee dem ca jàkka ja eh, jumaa ja di liggéey sëñ Touba seen yaay juralut àdduna doom liggéeyum nday nag liñ koy firee bokkut ak loolu liggéeyum nday dañ koy firee oto ki kër loolu tubaab bi am na ko te doyewu ko dara te du ko jariñ dara ëllëg liggéeyum nday mooy sa yaay jur doom ju baax joo xam ne bu jógee ci lislaam rek lay yëngu lislaam la seen yaay jural doom sant leen seen yaay sant leen ko bu baax a baax te ñaanal ko moom wàcc na yéen yéen a ci des li nga wax nag sañ am ci gone yi ci dëkk bi nañu war maal dëkk bi dëkk suuf soo xam boo faatoo ci nga bëgguñu ñu suul la ci nga jël sab saret takk ca apparleur teg ca musique di dàq nee na leen tumuranke gi ci dawal saret ni mu méttee boo ci buggee booleek déglu musique pourtant ñoom ñoom de ñoom ñoom ñoom seexu naa laa ngi ñoom sëñ Cheikh Mbaye ngi nii ñoom Cheikh Mbacke yaa ngi nii jàng son yu neex gis bu tarix yaa ngi fi ñoom eh, Abdou Khadir Fall nii ak ñoom Khadim Fall di jàng son yu neex li nga ko tege kale bi loo ko jox nag mu tegal la ko boo enregistré woon teg ko ci rek di dawal sa sareet dëppoog nag dëkk bi dafa am lu ma genn ko gone waxoon ci état bi ñuy wax muy rule ay air naa man booy dakaar la laa Sicap laa juddoo nii laa defee man ko wax après waxee pare ma ne ko xanaa kon yow bu booy parisien ñëwee yow nga tuxu man dëkk gi ma dëkk bawal damaa jàpp ne mooy suuf suñu war a dëkk ndax fi la sëñ Tuubaa doo tëdd fa foofa ku fa dëkkul ka fa dëkkee ëppee na la chance boo xam doo ko dabati mukk ci àdduna kon ñun ñu yàlla defal tawfeex nga xam ni boo doxee benn kilomètre àgg ci sëñ Tuubaa mën a teg loxo ci xabroot bi dëkk bi nga fiy xalaat leneen seetaatal sa bopp sa digganteeg sëriñ bi loolu jaaduwul ngeen baal ma ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah daayira la boo xam ne dund na at yu bari ab daayira judd na ci ginnaawam faatu waaye dañ ko samp ci jub ak dëggal jub ak dëggal ak waxtaan nag lu ko nit sampe mën naa gudd fan te it ànduñu it di jaayante mooy lépp lu ñu def dañ koy waxtaane lépp lu ci dul yoon it ñu xam ne lii du yoon ñu génne ko mu rus ñu wax kenn dëgg loolu it bu amee ci mbooloo mbooloo ma mën naa yàgg te it loolu mi ngi amagul ñetti njiit te njiit lu ci nekk bi mu ba di ko jox leneen njiit la ab liggéeyam a tuxu fii mu jël ko jox ko leneen njiit kenn mos ñu ci xëccoo njiit kenn mos ñu te dégg ci naka sulul noonu ba nañ ko daayira yi sax ni ko faral nga xam ne daayira yi góor ak jigéen ñi dañuy jaxasoo dañoo dem ba xam ne loolu mën naa indi gàllankoor ci liggéey bi séparé ko di def góor ñi kese di ñëw daayira soxna yi ku ko soxla ñu fekk la sa biir kër jox la ko dafa dem ñibbi ndax dajaloo gi buñ paree tasaaroo ku ne mën naa aw fenn te loolu mën naa indi yàqub liggéey bi mën naa indi li nga xam ne sëriñ bi bëgg ko ci dëkk bi muy ay ndaw yoo xam ne yu am ay yu am ambition lañ am gis-gis am vision bëgg koo ànd ñoo xam ne it mag ñoo xam ne bi ñëwee dañ leen a fekk ci yoon woowu ñu nekk ci ndax buñ ci tuddee sëriñ Saliou ñan tudd ci sëriñ Abdoulaye Diop ak ñi mel na ñoom jëluñu leen ko dégg ñu naan tudde bis tudde bis rek ñu tëb ni Abdoulaye Diop wala Saliou Diop déedéet ndax li ma leen wax léegi moo ci nekk lu ñuy def du du du kenn kenn tëb décider ko mukk ñun kenn du tëb décider bu ñuy def dañuy diisoo waxtaan kàddu yee jëm ñu xool la tax tamit ñu di ko def suñu Ablaye ci koñ bi lañ dëkk gis ko am nañu ko fi mag ëpp koy at am nañu ko ëpp alal waaye ñun jikkoo ak melokaan lañuy ñu toppee nit nit moo ne ci Serigne Saliou Niang ne ci ñëpp ñu mel na ñoom ndax Serigne Saliou buñ ko jëlee dippee ko bis bi tuddee ko ko tuddee nañ ko suñ seexu naa ñang kaan tuddee nañ ko mbooleem koo xam ne seetu suñ Ahmadou Fadiama Niang la waaye tàgge boo gis am na jàppal diw moo tax ñu jël ko tuddee ko ngir suñu relation yi ñu am ak sëriñ Cheikh Niang ci moom lañ daan jaar ngir am ko ba sëriñ sax ràññee woon ñu liggéeyu ci ëpp ñu di ko di ko ànd ak moom ba ci gàmmu gi nga xam ne ñu ngi koy taxawal ci penc mi ci jumaa ji kon loolu moo ñu booleeg dëkk bi ñuy ay ndaw yoo xam ne bi ñëwee it xam ne Tuubaa leen dëkk te ndaw ñi ku leen dugalul ci ci ci ci daayira yi jéem leen orienté defar leen ñu nekk ci leneen ñu xam ne suñu mission loolu la ñu nekk ci loolu ba daayri mën naa la ñu ko sampoon genn wàll gi ñuy nañ ñuy tukku nañ waaye ñu xam ne relève bi war naa ñëw te bu ñëwul it ñun ñun yàgg-yàgg dañuy dem ndax kër goo gis ci ëpp way juróom faatu na am faatoo doom la fa bàyyi waaye doom jooju bu amuloon taxawaay yaakaar naa kër ga du wéy kon ndaw yi ñuy former dañoo bëgg ñu am taxawaay boo xam ne bu ñu leen joxee liggéey bi ëllëg ndax yàgg-yàgg day ñëw faatoo ngi fi tuxoo ngi fi télé ngi fi ak manadi loolu ci lañ nekk ba tax na ñu jël ndaw yi ngir eh, war leen a def relève bi nga xam ne ndaw yi ngeen fi gis daan daanaka ñooy presque ñooy ñooy daanaka ñooy troisième génération bi am première jàll na deuxième jàll na troisième génération bi mooy ñëw mooy dugg si ndax ñu ci ëpp daanaka ñii Fuuta lañ jóge ñii Dakar ñii fu nekk un peu partout pour ñëw fekk si liggéey bi moo taxoon ñu jàpp ko ci ginnaaw tabaski loolu it ci la ñuy woon ñëpp ku ñu bëgg a jàppale nga ñëw jàppale ñu ci ndax ñun dégg-dégg sëriñ bi ndax sëriñ bi woote na waaye dégg ko yi dafa jafe déglu sëriñ bi ak dégg ko nag dafa jafe mi ngi mel ne ustaas bu toog di la waar ci sëriñ bi ak yoon wi nga di ko déglu man ndax déglu moom saa yu duggee ci nopp bi ca beele jaar waaye dégg am xel koy def am xel mooy dégg bu pare jàpp jàpp bu pare nag jéem a jëfe ñu jóg nag ngir bëgg a osé ndax sañ am duñ jóg mais ñuy tudd bu osé wu toon yaakaar naa du taxaw du taxaw Touba TV du fa nekk mais ci lan ngay osé booy jóg ne dama bëgg a ci lan nga war a yóbbu bu dee ci fii fii nga nekk ci Touba nag ndaw lu jóg ngir bëgg a osé day man dama bëgg a ci yoon wi fi sëriñ bi bàyyi man ma bay ci sama waar nan laa koy baye nan laa koy bay bu ngeen gisee daayira yi ñu ko tuddee ñu tudd leen ah, daayira yépp yi nga xam ne ñoom lañ bokkal koñ bii ñu jël leen di leen jox ay kàddu ngir ñuy feeñal seen yéene day lu mësta am ndax ñun daayira yi bu ñu tasee ci suñ biir ñoo bokk même même produit bu ñuy bu ñuy liggéey waaye day mel na duñ bàyyante xel dañuy bokk lu ñu liggéey waaye bu daay bu bu ñu woowee nit ñi bañ ñëw dañuy jox parole yi ñeneen ñu wax leneen or que ñun ñu bokk li ñuy def duñ kenn du jël weccante kàddu sa moroom ndax ngeen ndax yeen yeen yeen ambition ci ngeen bëgg a tënku ngir bëgg a dem ñu gis na fi yàgg nañ fi def ay daayira aji ju jot kenn ku ne takk say rajo jëmale ko sa morom kenn ku ne di jàng lu baax la ñu ne nag war nañoo trouver nag solution boo xam ne war nañu fédérer liggéey bi kenn ku nekk mën nay liggéey ci sa gox waaye mën nañoo jël daayira bi def benn fédération boo xam ne da nekk juróomi daayira yoo xam ne danañ am doole ba lépp loo xam ne Touba ci kanam bi ñëwee méthode rek la indi ak organisation ngir mën a def li mu def nii. ñun méthode boobu ak organisation buñ ko amee te booloowuñ parce que fii loo fi bëgg a def it booloo moo koy def ak doole ak alal ci dëkk bi ñu ne nag liggéey yu ndaw ndawaan yi nga xam ne ab koñ war na ko am te doole ak xaalis di ko def loolu booloo ñu koy may nañ ko jéem a tàmbalil suñu bopp fii bu dee liggéeyu luur yi nga xam ne mënuñu ko nag suñu doole àggu bu day yi mag yi ñëwee man ñu ko mu tënkal ci loolu loolu moo taxoon ñu invité daayira yi kenn ku ne dañoo demoon ci yow lu jiital yi wax la initiative bi wax la ne boo ñëwee da nga jël kàddu moo tax ñu jox leen kàddu waaye kon xam ngeen ne ñi ci ëpp sax miinuñu miinuñu micro loolu faaw ñu moytu ko ku bëgg na ci nit ñi bëgg a dox bëgg a dem faaw nga jéem jéem a ñeme nit ñi ndax nit dafa war di jël ay responsabilité ndax dëkk bi bu acce fii responsabilité ko fi indi ndax bi sëñ waa demee bi sëñ Modou Moustapha croisé woon la bara yaakaar naa yoon wi du am sëñ Cheikh ñang bu amutoon responsabilité jumaa ji du taxaw kon nit responsabilité da cee baax faaw nga jël engagement ne man lii laa bëgg a def fii laa toll fii laa nekk fii laa bëgg a jëm ñun nag ci yoon woowu lañ nekk ndax kàddu yi li muy rëy rëy li muy bari bari bari bari njariñ la war a jur kon buñ toogee te tànk wala fu ñu mën a toog dafa génn kàddu yi njariñ yu jëm ci sëñ bi war nañu mën a patienter te ànd ak dal di dégloo ndax am na ndaje yoo xam ne léeg dara yàlla du ca ne dara yàlla du ca ne te am na ñoo xam ne bu ndaje ma jeex sax dañuy métti lu jeex ga ngir bëgg faa toogaat am na ñoo xam ne bu ñu jógee daanaka du du daanaka mën nañoo ba ñu tëri bu ñuy wax lu baax dañ naan na jeex te bu ñu jógee ci jàggi jàggi bu ñu jógee jàll ci ba ca des te loolu njëriñu ko ëpp njëriñ njëriñu ko ndax guddi gi yaakaar naa ñun 2018 lañ ko gëj a def boobaak léegi ñetti at kon lu yàgg la loolu yi dañ ciy defoon di wut ay méthodes yoo xam ne bu ñu ko defee ren bala ñu ko defee ti jëlal ngir def yeneen yeneen procès bu ngeen gisoon ci taxawal cant yi ngir sàmbaliwaat mbooloo mi ñëpp dikkaat ñu xam ne daayira baa ngi fi ñu ba ñu tàmbaliwaat am ambition yi bees dem loolu mooy objectif dajale mbooloo mi kon loolu noonu la demee ndax koñ bi bi mu amaguti làmp lu Tuubaa bi mu jubsee daaw jéeg avant Tuubaa ci kanam dafa làmp yi bi màggal gi desee une semaine ci lañ mobiliser quatre cent mille francs yoo xam ne euh, penc ma ba ci canal bi ñoo def éclairage bi fii te loolu ambition moo ñu ko may ak leneen ak leneen ñu war a dox nag ci social ak dimbalante ndax daayira bi ku sëñ Seex Mbàkke Gaynde Faat mu di sos loolu ko taxoon a jóg te daayira Touba dañ leen a bàkkee ne daayira boo réalisation boo gis Touba ñu ne daayira ab di judd daayira Nigeria daayira nangam waaye université bii sëñ Mouhamadou Mountakha di tabax daayira Touba yi mënoo dem ba gis ne benn bâtiment lañ ci engagé wu ndax loolu jege giñ jege dëkk bi la walla nga xam ne ñetti biti day mel ne ñoo ñuy gën a farlu te it sëñ bi lu ñu war a taxaw bàyyi xel la ndax Touba koñ boo dugg ñeent fukki daayira nit day bokk ci daayira bi ba feebar ba faatu keesu daayira bi denc loo xam ne mën na koo faj waaye duñ bàyyi xel na sax est-ce que seen maanaam seen responsabilité ci faj kooku la ci la ci la ci la ci la aju ba fu mu yem nag bu wéree baax na ndax nit feebar bokk ci liggéey nga fekk ko fa bu dee ordonnance junne wala ñaari junni bu wéree dana xam ne mbooloo ma ngi koy bàyyi xel waaye bu ko juróomi junni di faj fajoo ko bàyyi ba mu faatu nga xëy sol say déguisement àgg togg-togg yi daanaka lu baax la waaye waaye ndax am na bis foo xam ne bu ñu la fa gisee dafa am lu war a jiitu nga ñëw ca ba pare après kon loolu moo nekk suñu mébét nekk ci suñu bopp yi nekk ci suñu xel yi ñu di ko gëstu di ko xeñtu far lañ ko war a jaar ak nan lañ ko war a defee daayira Tuubaa yi nag malheureusement niveau bi dafa yéegu ci waxtaan yi ak xalaat yi ndax majorité la ñuy comme lu sam xel rafet rafet rafet lu say xalaat baax baax te mbooloo mépp ñu ci ngir a mën a réaliser dara du yomb loolu nag mbooloom mbooloo moo ñu koy may ni ñu mbooloo mooy daayira bi indi fukki nit bi indi fukki nit bi indi fukki nit buñ ko mbooloo yi téeméeri nit ñuy daje lu am solo ngir di def le l'essentiel te bu boobaa it lii du mën a ñàkk ndax ndaje yi su boobaa buñ koy dajawaat lan la ñuy daje ay ndaje xam-xam ay ndaje lii lañ def ay ndaje réalisation bii lañ def hôpital bii lañ defar garab yi lañ samp lamp yi lañ taal fonds perdus yi lañ defar nangam nangam nangam foofu xam na ndaje yi bu ñëwoon tamit ci ci loolu lay dugg kon ndaje yi mënta ñàkk ndax daayira bi ñu ngi ciy jàngale xare yu jigéen yee ngeen gis daanaka quatorze femmes lañ yoo xam ne nii ñi xasida lañ leen jàngal ñi xam-xam ñi alquran ñu war a tari seen ay ay neexal ñu war leen koo jox kon loolu foofu la ñuy wàccee suñu kàddu di sant Serigne saaliw ndax suñu diggante ak moom xam nañ ko du jar leeral fii sëñ Ablaye naka noonu mboolem ñi fi yëkkati ay kàddu sant nañ leen gërëm nañ leen sëñ Pape Gora Sarr gis nañ ko suñu dijaay la day ànd ak ñun ci liggéey bi dañu ci xelal yu ci bari daanaka ci moom lañu dem mu ñuy teg ci aw yoon sëñ Mamour Sarr niñ ko waxee naka noonu ak sëñ Alla Sourang ak sëñ Youssou mi nga xam ne daayira bii fii dañ ko sose ci seen biir kër booba léegi ñu ànd ñun euh, liggéey bi di sant suñu jëwriñ ñi nga xam ne nag moo njëkk jiite liggéey muy sëriñ Modou Sourang yàlla dafa dogal mu nekk Italie sëriñ Pape Cheikh Fall mais moo ci topp Dakar la jógee man mii maa ci toppoon jiite ko ba yàlla dogal ma jox ko sëriñ Aliou Ndoye mi koy ñaanal suñu borom guddal fanam ba mu jiitee ko ay di sant soxna yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi buñ buñ ko tegee ci loxol soxna Aïda Diop sant nañ mbooloo mépp bu fekkee ci ndaw ñi la buñ ko taxee ci loxol may Senghor euh, sant nañ ñëpp di sant pour képp koo xam ne nii daayira bi euh, sam xëy ak sam ngont yëpp euh, bàyyi nga ko ci xel ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne kàddu gi day lu dafa doon lu mënul ñàkk faaw di ko yëkkati ndax àddina kat buñ fa dajee ngir mu jàkk ay xelay wax xel yi bu waxee xelay wax xel delloo xalaat doo ko mën a génn kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. koy delloo kàddu. dañoo wax jox. bala ñuy ñaan sëñ Ablaye